Get up. soul.

wallahi taalaahi kenn rek a des ci àddina boo xam ni ku ko jublu am ndam ku ko wan ginnaaw des ginnaaw torop maa ngi déglu bu wér sëriñ baa ngi nii شيخ احمد بابا خالد رسول مولانا Eat them.

nga xam ne convocation yi tàmbali di ñëw coow li tàmbali di am yëngu yëngu yi tàmbali di am sëriñ bi ngir mu def jàmm ji nga jiitu ci jàmm jooju dafa daal di bàyyi lépp lu mu doon def bawoo Mbàkke mbokk yi bañu convocation yi lépp turu fas yi ñu ko dugg borom kër yi loolu sëriñ bi Mbàkke bari ngir noflaayel nit ñi kon sëriñ Tuuba noflaay rek la gis kii gisut noflaay ci boobu rek dina sëriñ bi ci boppam daal di wëlbatiku bi mu ñëwee Mbàkke bari yabal maam Thierno Ibrahima Fatick moo dem teewale ko ca Barbiya bay déggee tubaab bi moo mujj léegi daal seen bi xam na ne su demul wuy ji su demul woon bis bii bisu jihaat la woon bisu jihaat la doon toog ndax booba bi nga xam ne moom sëriñ bi fa la toog diggante Mbàkke Bari boobu ba Daaru Marnaan bu mag boobu fekk na ne ña fa nekkoon ñun ñëpp buurloo ak seen i ngànnaay ci taxaw ne kenn du laal seen sëriñ mu Seex Ahmadu Bamba kon bi nga xamee ni gis am na. sëñ bi daal di bëri ci bis bi dafa yàgg ñu ci bisu bisu bisu bisu samedi ba ñu ci bisu samedi ba dañu bëri daal di wër bëgg nag doxal boppam dem daje jéeg noonu yi nga xam ne dañ leen a yabaroon wala ñu ci def arrestation ci kawam te mu xam ne ñooñu bu fa ñëwee ñu ko arrêté yi amul moom suñu kàddu gi mu nekk tey jii di am mu xam ne tey jii bernde yi ngeen xam ne am ngeen ko mu xam ne tey jii jàmm ji ngeen xam ne am ngeen ko mu xam ne tey jii taw foofu yi nga xam ne am ngeen ko dara loolu la ko mën lu dul benn mbubb ba mu weex moom moom daanaka yooyu doon fay tey mooy liggéey loolu yëpp kon lu bernde yi bari bari bari lu xéwal yi bari bari bari bari bu leen di boole mu am ko. mooy mooy mooy mooy day leen xalaat ku waral bés bii la taxoon la ko taxoon a jug day leen xalaat moom li ko taxoon di jug ci lislaam taxoon ko di ci sëriñ bi pour bés bii bu la dégg ñu dugal loolu loolu moo doonoon taxawaayu sëriñ bi kon nag Cheikh Khadim Ndiaye jàmm borom daal ak jàmm bu ñu ak mbooloo yi kàddu yow tey war lépp mu sax waxu fi waaye la ma leen di firndeel li firndeel mooy